ñaanal sax di nga ni ndax ñun lépp lu am Sénégal lañ koy delloo ndax foofu lañ am foofu lañ juddoo foofu la suñu bàyyi jógee waroon nañ di mën bokk ci gouvernement Sénégal di bokk ci ñëw bii di barkeelu si ndax tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass lu rëy la ci àddina bi ñu ko doon gouvernement waroon na di ñëw mai saurin gajiya ka zaune ai gurin na ba ta da ga zafi ga bayan ranar haka ne da zai kamar zai ba da da zama ka zauna ka kalli inda za ka nan inji na ɗaya kuma haka yaa euh, parce que nit ñi kenn dalalu leen da gis koo xam ne da kenn dalalu kenn kenn joxul kenn da ngeen di toog ci mbedd bi di lekk di naan yaa koy jëndal sa bopp euh, soo soxlaa dem ci mbedd bi waaye dara xeentu Mawlana Cheikh Ba kon seen yoon tey su jeexee nga gis delluwaat seen kon nga xam ne lañ gis ci bàyyi mu jaral leen chaque année ñu ñëw ay at at mu jaral leen lii am na lañ gis ak lañ xam moo leen waral loolu. kon ordinateur réforme bi nga gaañ seen ay ñoo tuuti. Sénégal ñu départ di ñëw ndax seen titre la mais Sénégal yi nga xam ne tey ci àdduna bi yëpp moom la ñuy xëccoo ñu ñëw moom muy mu réeral chef ndeysaan xoolal gars yi ñuy rëj rëj loo xoolal ñuy rëj rëj gis nga police yi police yaa ngi nii ci kaw ñu ngi xamante ni xoolal ñu ngi nii waa ji may wax rek gis nga stade baa ngi stade baa ngi stade baa ngi waaw ren nag ren nag ren nag ren nag ma la waxee woon rek damaa jël yooyu ginnaaw nga xam ne day filmé ci kaw jaww ji yooyu ginnaaw nga xam ne dañ ci kaw jaww ji jël nañ ko la ci li nga xam ne moo nekk ci biti ak lu nekk ci kër yi ak lu nekk ci biti dëkk bi ndax kenn ku nekk am nga noo koy màggalee am na ñoo xam dañuy wax ne gannaaw këru la ngay demee rek dañu ñëw ba ci buntu kër na ñu taxaw ñu taxaw jàpp fu julli dafa sañaane seen basal di def ay salaat fatiha xam ne moo la macha allah am na ñoo xam ne ñu ngi seen bër kër tey bu ñu dugg si fii am na ñaari waxtu yoo xam ne mënuñoo te lii as topp la ci mbooloo هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق ومحبة للشيخ الإسلام عليه lenn mu tëtal waaye tëtal dëgg ak bëggeel boo xam ne bàyyi am na ko ak jaayante bi nga xam ne jaayante woon na ko woon sallallahu alayhi wa sallam jaayante boobu nag ba ko gis ci jaayante boobu dafay taxaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boo fubi adu boo fubi adu mattale sama xol moom itam sama xol te bàyyi dafa wax ne ne moom mooy aji mattale kaatu julli santaat yàlla bu baax ñun dajewaatee fii ci kanu 2019. incha allah yàlla nañ fi dajewaat ay at yu bëri comme ni ko daaw ak daaw jékk mbooloo mi nga xam ne dajewaat nañ fi ren di seen kóllëre ak seen mahabba ak seen show ci Mawlana a Al Islam Hadj Ibrahima bi nga xam ne dafa àndoon ak moom ngir yàlla ndax daf la jox léppam yonent bi waaye tamit yàlla may na ko mu ne dundam dafay neex waaye tamit dee dafay neex mosuma dégg ku wax sabatee dafay neex ci Mawlana Cheikh Al Hadj Raye Islam mu ne xayaatee taxlu bil mahabbati wa tuqa wal mawtu yaxlu bi shuhuudi kadaliki sama dund dafay neex ngir bëgg yonent bi ak bëgg yàlla ak topp yàlla ak topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk moomee dajeeg moom sama dee dafay neex ngir jël ak jëmmu yàlla ji bés ne ci ku nekk mooy jël ak jëmmu yàlla waaye ku xam ànd ak Mawlana Cheikh Al Hadj Raye Islam la googu dina la hommat ba ne la xaaral ba ñu ngi sant yàlla ci daje bi nga waaye ñu ngi ñaanal xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ñaanal mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass daje bi nga xam ne depuis démb taalibe ñu ko fi daje ba tey te loo gis nii ci stade bi as topp la lu nekk ci biti ndax am na ñu nekk seen kër yi am na ñu nekk seen barab yi ku nekk bu ñu koy màggalee waaye ñun ñoo préféré ñoom ña gisanteeg taalibe yi